am kattan ñëw di bëre si loolu ak fula ak fayda loolu day jàpp nañ ne kenn ku xam Bombardier xam ko ci moom day ñaan nag yàlla wax dëgg yàlla journée tey bii muy journée bu neex boo xam ne ci kàttu ne ah merci beaucoup. Boucar ah, Bombardier vingt neuf ans de carrière euh, trente on dirait deux fois roi des arènes. palmarès bu riche palmarès palmarès bu glorieux vraiment mu def parcours boo xamante ni tey mën ne tey def na euh, vraiment. boo ko que 19 am ko tey sur 30 combats am daan yëpp yëpp yëpp matul 7 personnes parce que Yékini moo ko daan 3 fois su ma ah, ah. tegle ko ah ama seen tegle ko 2 fois xam nga Baboy ah. Gris ak ak Tyson 2 bële na le vraiment xam nga ak Reug Reug kon yaakaar naa ne tafatin ah, waaw six personnes nga limagum ah kon yaakaar naa ne kooku def na palmarès bu riche macha allah nekk un grand champion te vraiment li ma gën a marqué moom maanaam yar teggin bi muy dégager à chaque fois tey ah. Bombardier trente ans de carrière mosoo gis ñu ne Bombardier moo fi wax lu ñaaw li wala moo fi def lu ñaaw li kon loolu yaakaar naa ne gàcce ngalaama xale yi nañ ci roy mais xale yi léegi vraiment da nga xale bu bëgg a dugg ci làmb démb a teg sa bopp champion teg sa bopp foo tey mag ñi fi toog ni yëpp tey lu rafet lañ wax si moom kon yaakaar naa xale nañ jànge si moom euh, en tout cas daal ñu ngi koy ñu ngi koy jaajëfalaat bu a Bombardier dañuy dem ci nga xam ne moom mooy adversaire am tey ah, moom mooy kan moom mooy Franc Franc nekk Parcelles Mbooloo Franc moom douze combats la def douze victoire moom mu ngi commencé carrière am en 2013 donc ak tey onze ans la première victoire mu ngi daan géej Mambulaan le décembre mu daan Jara 2 premier mu daan ki nga xam ne mooy Rëmz le 31 juillet 2015 daan Serigne Ndiaye 2 le 13 mai 2016 daan Caatu Yoff le 25 décembre 2016 daan Njaga Doole Njaga Doole le 5 avril 2017 daan Mbaytin 2 le 23 juin 2018 daan Nguer le 27 juillet 2019 daan Bébé Saloum le 8 mars 2020 daan Tyson 2 le 19 juin 2021 daan Sokh le 19 juin 2022 mujjee daan Forza le 21 kooku mooy Franc kooku mooy doomu parcelle bi mm. ah grand Abdou euh, Bourkhane lan ngay wax ci palmarès Franc boobu. waaw moom tamit euh, palmarès palmarès bu honorable la am. ndaxte bu fekkee da nga def douze combats. bu mm. soo am defet. waaw te it euh, lutte simple bi. waaw sa empreinte. Mm. actuellement la ñuy xalaat ci moom mën na ko nekk mu nekk roi des arènes mm-hmm. euh, ñuy wax ni rek euh, làmb jooju waaw mun na am surprise mun am surprise waaw mun na am surprise mun na am surprise mun parce ah. que boo boo tegoon ñaari mbëri tey jii xool seen ak seen palmarès mm-hmm. da jàpp ne rek ci am douze victoire alors jaar fi mu jaar ci simple mm-hmm. am ay loxo yu wóor yi mu nekk da ngay jàpp ne tey jii normalement moom moo war a gagné alors que Bombardier lii nekk suspense bi mooy dafa am hygiène de vie munoo ñëw naan amul doole wala entraîné wul à chaque fois su taxawee sa kanam da jàpp ne xam nga ne hmm. mën na def lu baree bari ndax dafa daanu ci Eumeu Sène ñu naan new kii jeexal na man leen am na combat MMA su demee MMA di xam ndax Sénégal la mais li mu def ci ay combat ëpp na trente moo tax tey ji làmb la boo xamante ne li tax nit ñi mu am suspense bu fekkoon euh, bombardier dafa nekkoon ku nooy kon kenn du ci xalaat dara mais dafa nekk nit boo xam ne mm-hmm. mën na toujours moom toujours mën na euh, renverser tendance parce que keroog tàkkusaanam ak Balla Gaye euh, kenn xalaatul woon ni mën na daanaat Balla Gaye incha allah grand Abdou Bakhoum palmarès de France douze combats douze victoires bu débuté en 2013 tey muy bëri bi nga xam ne il a été deux fois roi des arènes palmarès de combat de France. waaw ah, mais Franc la xale la boo xam ne bii. Hmm. ku yóbbu sóoraale ko. waaw parce que boo xam ne bii avant muy dugg arène. waaw dafa jaar mbapat. waaw di bëri ci tournoi yi di dem. Hmm. ba dégg daal yi bi muy ñëw fekk na mokkal na bëri hmm. mais bi mu ñëwee itam gis fi mu nekk. ma parcelle euh, dafay am ñoo xam ne ñii euh, dañu nekk ay nitu làmb au niveau ñi nga xam ne moom la dëkk moom dina commencé passé ba grand yoof jëm si noonu yëpp da ngay gis ne dina commencé noonu ba ba bay dugg Pikine géej mooy parcelle ñu génn dugg Dakar foofu noonu ñu bëri yi nga xam ne ñoo man tey à Dakar tey jii nii bokk na ci xale yi nga xam ne am nañu yaakaar ne ci kàttanu yàlla mën nañu tey làmb attention Franc da xool ne bërëb mais dafay xeex day xeex di bëre te it jàpp naa ne euh, distance mu war a ak ki xam ne kii mooy bombardier jàpp naa ne koo xam. xam parce que euh, attention Franc looy def xëy na ba mu kole la. waaw ci biir bëre da xalaat leneen. dëgg la bombardier it looy xalaat mu daan. Mm-hmm. Franc daanagu moo tax fi mu nekk nii. pour mën a boole ñooñu nag ci benn buum wan na ñi nga daan ñëpp yow maa la daan mën a bokk damay jàpp ne ci kàttanu yàlla il faut mu daan Bombardier mais Bombardier mbër la moo xam ne bii moom itam daa yàgg dëpp xale kon Franc euh, mën naa ne comme ni ko subaay waxee rek cent pour cent dix islam parce que douze combats douze victoires ah attention mbër mën na ko am xëy na dëpp waaye mën na ko am it sori ndax Yékini booy ju booy seet am na combat yu ëpp loolu te hmm. kon tey jii nii ku mel ni Balla bi numéro deux hmm. amoon na ko a bari na ñoo xam ne ay mbër yoo xam ne dañoo mais mu ñoom yi nga rek rek hmm, nga gis ne da ngay gis ne ngay dem ni def na ko euh, de douze en vraiment combat tey vraiment yàlla da ko sutural yëpp may ko si ndam bu si nekk aussi avec la manière kon yaakaar na ne kooku c'est très grand champion au lutteur agri ni ko père Bourhan waxee rek jaar ci mbapat def si parcours boo xamante tey xëy njeexital li tey mooy feeñ tey ci arène bi kon yaakaar naa li may wax à chaque fois tey lamb bu newoon tey mën na tey université bi tey mooy mbapat bi malheureusement nag gonal yu neexi tey di dugg si àll bi di gàddu sa saak di ko ñàkkante foofu da dem ba da ngay da si bëre da ngay sa yaram da am cardio boo xamante ni tey li may wax à chaque fois tey expérience bi nga fay am tey mënoo ko am ci écrit mënoo ko am ci contact mënoo ko am feneen ba yaakaar naa tey bokk na tey si li gën a tax tey Franc tey yegg si nii tey en euh, am na combat nag te combat bi moom li may wax rek mooy franc lañu mën a xaar bu arbitre bi sifflé non bu kenn ku ne xam na ni franc mhm. euh, day ñëw jege jege bombardier day ñëw seere bombardier seere bombardier mais uh-huh. bombardier aussi mhm. dafa am benn stratégie boo xam ni waaw euh, ñi ko mën a dékku bariwuñ parce que xam na ni moom boo ko bëggee boo ko coup de dégagement lay def mhm. pour mën a maintenir à waaw kii bombardier bi ñu xam combat bi nga xam moo nekk ñaari yoon roi euh, roi des arènes parce que am na stratégie nag boo xam ne moom la yor def ci lu bare bari hmm. euh, tey jii moom dafa sut franc dafa sut franc day tiim franc day tiim franc fekkee ne par exemple dafa ñëw bàyyi franc mu taf ko kon li ko dal ci rëg rëg euh, moo koy dalaat encore parce que du du am temps wu élaboré warul du yoon nur kenn ku ne xam na ni sur le plan stratégique ci la ñuy gagné tey jii combat bu tey bi waaw ah, grand Abdou Bakhoum pour an nee na euh, rek franc da ko war a seere da ko war a ñëw loolu woor na est-ce que waaw mais wóor na wóorul parce que euh, Bombardier attention hmm. ñoom ñaar ñaari pieds c'est pas du benn ki xam ne kii mooy Bombardier pied gauche lay teg di nga xam teg pied droit day léewaatoo dagg léewaatoo bi wàcc ba tas dox ci sa kaw li muy dox ci sa kaw mu xool sa diggante sa ñaari loxo li nga dugal sa loxo ak ni ngay sa loxo mm. fan nga war a jàpp ak fan la la war a jàppee pour ñoom ñaari mbër la yoo xam ne jàpp naa ne mën na tegaat si ko ko ak yow ñoo ngi fii bu ne xëy na da ko teg ci yoon. waaw xaw ma mm. mais bu ko tegee ci yoon. bëgg dafa war a jóg tey. non bu jógee wóor na. day jóg parce que xam nga bombardier. Ah. ñu bari maasam la ñu xool ba dañoo jàpp ne mën na bëri. bombardier mm. dafa mën seetloo mbëri yi jàppanteeg moom daan ko bariwul. boo xoolee euh, Balla Beye ca mm-hmm. dafa ñëw avant koo Bombardier di jàpp la ko daan parce que day dugg muy xeex ak moom. waaw dugg di génn dugg di génn ba ramasse tànk poñ. bomba euh, Gris Bordeaux. waaw bu ca xeex ba. dafa dóor Bombardier Bombardier fayu mu rëpp. mu ngi daw di ko dab si. Mhm. mu rocceeku bàyyi ko. mu daanu mu à chaque fois du nangu ñu jàpp da koy de dinaa toog di am yaakaar. ndax yàlla moo ko may mu mën a jàppante. Franc ci li Abdou di wax sànq. ci pied gauche droit. su fekkee ne Franc dafa war a daan boobu. wuutee gis-gis moo waral marchandise bi jar waaw yaakaar naa ne loolu aussi lu jaadul tey ku si nekk tey xëy na tey mbir bi adapté noonu combat li muy wax rek euh, tey mm-hmm. euh, Ba mu wax rek tey diggante mag boo rëg-rëg tey ñu bëri li ñu ko reproché mooy maanaam tey loxoom loxo Bombardier impact la dal dafa war a impact te Franc tey bu ko Bombardier bëggee daan tey na fexe kuwam dal ko mu réduire doole Franc réduire puissance Franc mm-hmm. parce que Franc tey bu fexee bu Bombardier sàggane ba Franc laxasu ko fenn jàpp ko fenn moom kon Bombardier tey na def le maximum tey mm-hmm. am distance boo xamante tey bu Franc di départ di ñëw dina a dina ko mën a gis mën a am réflexe mën dugal ne serait-ce benn coup mën ko ko dugal mm-hmm. avant Franc di ko jàpp sinon rek Franc bu ko Franc Bombardier est-ce que mmh. xeex bu bagaar bu bu bu saf mën nañ ko ci xaar. mais mën nañ ko ci xaar parce que nee naa la. xam nga euh, toujours Bombardier da koy wa waaw nee naar kenn du ko woo ci guuxum soow. waaw moom ñi nangoo xeex ak moom ñëpp mmh. kenn ku ci nekk man même koy gaañ sax. waaw ci wane moom tamit jàmbaar koo xam ne da ah. xam ne kii mmh. ko tawaat di def. waaw nga effort malgré gaañu na mais terewul da koy def. contre ay ñoom Balla Gaye ñooñu kenn woon ni carrément yow boo mënee xeexit day sorewo kon waaw moo tax ma ne la tey combat stratégique la ci stratégie la ñuy gagné damay wax ne c'est par un entraînement intensif que le meilleur gagne mais des fois nag ci côté stratégie mën nga dugal loo xam ne du ngeen yegg yegg sax ci ay combat yu intense waaw parce que léeg nga ñëw fatt nit ba li mu bëggoon def yow du ko mën a def surtout ñoo xam ne bokkuñu tànk bi ñuy teg loolu moo tax combat la boo xam ne daal am ah. naa yaakaar ni euh, dinañ seetaan tey bu neex a a neex grand combat bi ah, euh, tey boo yoroon franc est tey franc di ko di nga ko di nga ko xeexloo contre bombardier parce que nee na bagaar il faut mu am ko xeexloo xeex ak bombardier waaw il faut mu mën a luppaloo coup bombardier du accam waaw mën ko moytu bañ ko daal dëgg la te bombardier pour mu gagner comme ni sa waay waxee léegi pour mu gagner combat waaw il faut mu toucher Franc. Mm-hmm. ci kaw Franc parce que Franc bëre bi muy bëre mooy dina la may distance. waaw mais li ci ëpp yunn yunn yi muy def. dem ak ñëw. Mm-hmm. loolu sa yaram coriace ci waaw moo koy mën. nga xam xam ni muy demee dina xam. li ah, ah. nga xam ne lii moom laa gis. waaw mm-hmm. combat la boo xam ne bii. ñoom ñaar ku ko bëgg a gagner di nga mooy teel a jàppante Bombardier da ko war a bañ. mais Franc. teel a jël coup bombardier da war a bañ. ko a xam ne même buy jël coup bombardier. waaw waru koo jël waru koo jël en en en en loin. parce que impact bi nga xam ne moo jóge ci gento jëm ci épaulette bu ko jëlee. waaw kaw coup boobu. waaw bu ko jëlee làmb ji a yàqu. ne tey bu jëlee coup bombardier. fa combat mën na yàqu beneen beneen bëre. waaw beneen bëre ngay gisaat. beneen i ngay gisaat day am changement day doon day changé. attention. Euh, bombardier itam. waaw bu at bi soufflé. waaw tey man rey booy bi yegg ko fi mu ko war a yegg. waaw ci bëre ay tàng ak ndigg ak yooyu. waaw attention mën na ko daan parce que boobu yàgg naa bëre. ay tournoi ay lourd. waaw attention. Euh, franc. waaw. dëgg la ko doon gagné mu ngi de. mais nan la koy gagné par point. par point la. koy génnee. Uh-huh. ba nga xam ne bëre ba mën waaw moom. Hmm. Euh, bëre bu sew. waaw il faut nga mën am fële foo ko mën a ko touché waat ko. Ah. xel mi toxu a bëri moom daan mais mais ñaar ñëpp toujours tey defet si kan lay gën a bon. non bu dee ci côté Bombardier moom defet bi mënu koo wàññeeti dara. parce que deux fois roi des arènes. moom fi mu ne dafa toog rek di kasataatu quoi di koccaatu. Hmm. lu mu yóbbaale retraite. dëgg la tey defet ki mu baaxul. waaw mooy franc. ndax boo ñuy war a ubbi buntu VIP yi waaw ñëpp nga doon la xaar foofu waaw ñuy aspirer ci yow nga nekk roi des arènes waaw waroo perte combat yu mel yow loo si wax d'accord nga waaw mais loolu day am ah. lamb lamb am na réalité li ci ëpp waaw sept jours hmm. euh, comme li ko léegi waaw mën na am loo xam ne lii da lay bett ci biir bi dëgg la surprise ah. ah. amee surprise man duma waa mais surtout yaa ngi koy wax rek. non du ma bett. du la bett uh-huh. am na lu ko waral parce que boo xoolee ñoom ñaar dañuy defe signature. waaw Bombardier teg micro bi ci suuf. Uh-huh. ko a yab. am na fu mu taxaw am na mu taxaw bu uh-huh. am xeer bu mu donc loolu moo ñuy permettre ñu dugal le grand promoteur promoteur bi nga xam ne tey moo tugg journée bi journée bi nga xam ne tey waa jàmbaar production yi ñoo ko tëgg mu war dox si kanam tuuti si diggante Franc ak Bombardier war a dox si diggante Youssou Ndour ak Talfa mu war a dox ma jox